dal leen ak jàmm ci leeral point tey nag ñu ngi daal di xëy rek ci xëtam gu njëkk une assistante infirmière de l'hôpital Le Dantec traînée en justice gannaaw rek daal ngi ñu daal di nemmeeku ab assistante euh, infirmière bu nekk fële ca moom daal ñu daal di tuumaal dafa daal di jël rek li nga xamante ne mooy ay brosse à dents te fekk daal di ko fay maanaam rek daal ay boros yi nga xamante rek daal dañ koy daal di borosoo loolu daal lañ ko daal di xamle gannaaw rek daal gim ko daal di jëlee ci ab pharmacie waaye moom daal li mu daal di xamle mooy moom RG dafa wax ni mel moom daf ko sax fàtte fay ndax kat ni ki nga xamante ne rek daal mooy médecin di woon yónni rek daal ay francs ci suñuy koppar gannaaw rek daal léegi mu daal di jëlee ñaari brosse yooyu mu fàtte ko fay fële ca comptoir ba mu daal di dem ba ci buntu ba rek daal daal di fàttaliku daal moom daal di ko fay muy daal di dëpp rek daal fa la ba daal di ko fekk daal di ko jël rek te moom nee woon na sax dafa fogoon euh, li ni mel daal maanaam brosse à yi moom li muy daal di jar rek mooy 1000 francs waaye yaakaarul woon ni 3000 rek la doon jar ci loola tamit eh, ki nga xamante ne mooy vigile ba bu ñu sukkandikoo ci laas moom nag dafa daal di indi rek li nga xamante ne mooy version boo xamante ne dafa wuuteeg bi mu joxee ndax dafa ne rek daal gi mu daal di duggee dafa daal di jël ñaari brosse yooyu dugal ko ci poche am gannaaw rek daal gi mu daal eh, ko fay sax daal ca loola la génn rek moom it mu daal ko fekk ci bunt ba daal ci loola waaye tamit ci tribunal instance bu Ndakaaru ñoom nag daal dañoo yaakaar ni li ni mel daal warul sax nekk la xamante ne mbirub lu garaaw la ndaxte ñaari brosse à dents rek li nga xamante ne daal mënul jël ampleur bi ni waaye nag daal dañ ko daal di déclaré ab a te loola défense bi daal moo jël ab intérêt partie civile